ci lii tax nga nekk jullit loolu bokk na ca mooy an astaghfirullaha dawman mooy fu ma nekk may jéggalu yàlla di jéggalu sama boroom jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu wa an attabia sayyi'ata xasanata li tamxiha saa yi ma defee lu bon ma jóg def lu baax loolu mooy fukkeelu sart ak juróom-ñett mooy may jéggalu sama borom an astaghfirullah dawman tout le temps fu ma nekk ma jéem a miinal sama làmmiñ bi ma jéem a kole ci sama xel ak sama xol ak sama gémmiñ di jéggulu yàlla mbokk yi war na noo jéggulu yàlla rawatina nag waxtu wii nu toll jéggalu yàlla guddi jéggalu yàlla bëccëg jéggalu yàlla ci suba yi jéggalu yàlla ci ngoon yi tuuba liman wujida fi saxfatihi istigfaaran kathiran aljanna jooju tudd tuuba day ki yàlla yónni woon ci ñun nee na ñeel na waa ji nga xam ne dañoo fekk ci kayitam yowmal qiyaam jéggalu yàlla yu baree baree bare mbokk yi baatu astaghfirullah amul moroom bokk na ci min fadailil istighfar ay ngëneel yi nga xam ne jégglu yàlla di wax astaghfirullah astaghfirullah waxuma saafurulaay de da ngay gis mag mu yor kurus téeméeri per nga yaakaar ne astaghfirullah lay wax mu naan saafurulaay saafurulaay saafurulaay saafurulaay du dara astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah noonu la nit di jéggaloo yàlla mooy maa ngi jéggalu sama boroom yàlla nee na istaghfiru rabbakum innahu kaana ghaffara jéggalu leen yàlla seen boroom ndax moom jéggalaakoon la yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi mu ajee ajatul wada aj gu mujj gi ba ñibbisi bokk na ci li ko yàlla wax wa sabbih bi hamdi rabbika wastaghfiruhu del sant sa borom foo nekk waaye dee ko jéggalu mbokk yi bokk na ci ngëneelu astaghfirullah innahu taatun lillahi azza wa jal kii wax astaghfirullah na yëg ne moom mi ngi topp yàlla mi ngi topp yàlla jalla jalaaluhu wa azza kamaalu ci li ko yàlla wax jéggalu ma mi ngi jéggalu yàlla kon yàlla dina ko jéggal ndax dafa déggal yàlla yàlla moo ne ko baalu ma jéggalu ma tudduma moom waa jooju mu jóg di def loolu moo tax bokk na ci ngëneeli jéggalu yàlla mooy wax astaghfirullah mu ne innahu sababul maghfiratu zunub moom astaghfirullah sabab la li tax yàlla jéggal la say bàkkaar mbokk jullit yi kenn ku nekk ci ñun sikk nekk ci ne dañoo fees del la ki dañoo yenu bane ne gàññ te bàkkaar nag jarta xepp ndax iblis benn bàkkaar la def yàlla alak aadama ak awa ku nekk benn bàkkaar nga def yàlla dàq leen génne leen biir aljanna mbokk yi yéen ñi dégg sama kàddu man ak yéen kenn ku nekk xoolal sa bopp ñaata bàkkaar nga am balil insaanu ala nafsihi basir ku nekk xam nga sa bopp ku nekk xam nga li nga yanu mbokk yi bokk na ci sababu yàlla jéggal la sa bàkkaar mooy nuzulul matar astaghfirullah day wax day tax su maral amee ñi koy wax yàlla dimbali leen ndox daa di ñëw ndox daa di wàcc seeni tool ndox daa di roose gàncax bi daa di roose àll bi al imdaad bil amwaali bal baniin astaghfirullah ki koy wax su amul woon alal yàlla dina ko may su amul woon njaboot yàlla dina ko may njaboot léeg nga dégg ku ne man de njaboot laa bëgg léeg-léeg ku ne man de alal laa bëgg kon yow mi nga xam ne da bëgg alal yow mi nga xam ne da ngaa bëgg njaboot taqalal sa gémmiñ koleel ci salaam làmmiñ astaghfirullah te moytul ma astaghfirullahi juróomeel mooy duxulul janna ki wax astaghfirullah li koy teree dugg aljanna mooy faatu ndax kii wax astaghfirullah sunu borom subhaanahu wa taala nee dinaa ko dugal ci sama aljanna ziyaadatul fil quwwati bi kulli maaniha kii wax astaghfirullah yàlla dina ko yokk kattan ndax yàlla moo wax ci alquran wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum sooy wax astaghfirullah yàlla dalay may kattan yàlla dalay may force ci mbooleem force yépp nag bu dee force am am yàlla dina la ko may bu dee force xam-xam yàlla dina la ko may doole goo bëgg kattan goo bëgg ndax sunu borom du waxatu du waxantu moo ne kuy wax astaghfirullah wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum yàlla nee na doole joo amoon dinaa la ko yokkal almataaun xasan kii wax astaghfirullah yàlla tabaraka wa taala dina ko bànneex loo bànneex bu neex ndax yàlla moo wax ci alquran yu mattukum mataan xasanan dinaa leen jox yóbbal yóbbal bu neex kii wax astaghfirullah sunu borom subhaanahu wa taala daf koy jox yóbbal bu neex a neex a neex daf ul kii wax astaghfirullah sunu borom dina ko jañal balaa kon mbokk yi noo ngi ci weer woo xam ne ci waxtu woo xam ne balaa dafa tasaaroo ci àdduna bi ñëpp di daw ñëpp tiit ñëpp ragal wallahi alazim ku ci bëgg mucc deel wax astaghfirullah deel wax astaghfirullah yàlla dina la ci muccal ndax sunu borom moo wax ne wa ma kaana allahu muadibahum wa hum yastaghfiruun yàlla nee na nit ñi fekk ñu ngi wax astaghfirullah duma leen bugal feek ñoo ngi wax astaghfirullah duma leen mbugal waaye mbokk yi ndax astaghfirullah la ñuy wax mbaa waxuñu saafurullaay wala ñenn ñi naan astafarla ñenn ñi naan kenn xamul senegal sénégalais wax dafa ne rek diine moom loo wax rek baax na fekk baat nañ ko jàng balaa ngay xam ne ñàkk wax baat yi musiba la ñu jox la benn numéro téléphone nga ci woote nga jum ci benn chiffre wallahi ki ngay woo fii ba àllaaxira fii ba suba du la wuyu kon baat yi buñ la nee waxal astaghfirullah jéema la wax astaghfirullah kon astaghfirullah day dindi balaa raful balaa sunu borom nee na nit ñi fekk ñu ngi wax astaghfirullah duma leen duma leen bugal wa huwa al itaa kullu fadlin fadlahu astaghfirullah day tax sunu borom subhaanahu wa taala la ay xéewal boo ko amoon it yàlla dina la yokkal al ibadatu ahwaju ma yakunu ila al li annahum kaanu mu ne sunu borom subhaanahu wa taala nee na astaghfirullah daanaka mooy genn wàllu jaamu yàlla yi lu tax kaanu qalilan min alleyli maa yahja'uun wa bil asxaari hum yastaghfiruun gaay yàlla yàllaa ngi leen di tagg nee na néew na daan nelaw guddi waaye njël dañuy toog di jéggalu seen boroom jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu mbokk yi al istixfaar sababu nuzuli rahma astaghfirullah mooy tax yërmande wàcc yàlla nee na lawla tastaghfiruuna allaha laallakum turhamuun lu taxoon bi ngeen amee jafe-jafe li taxoon bi ngeen nekkee ci ci coono li taxoon bi mbugal wàccee seen kaw ngeen jéggalu yàlla ndax yàlla yërëm leen mbokk yi huwa kafaaratul majlis jég euh, astaghfirullah mooy tax soo waxee astaghfirullah fépp foo toog boo fa waxee bàkkaar boo jogee bàkkaar ba wadd moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam saa yi toogoon fenn waxtaan bay jóg daana def kafaaratul majlis mooy subhaanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an laa ilaha illa anta nastaghfiruka wa natuubu ilayk sahaaba yi nee nañ daanañ daanañ konte lu ëpp juróom-ñaar fukki yoon yonent bi di ko baamtu fu mu toog kon yéen sama doomu ndey yi yéen samay mbokk jullit astaghfirullah mu ngi noonu mu bokk na ci astaghfirullah mooy iqtidaa bi sunnati nabii sallallahu alayhi wa sallam li annahu kaana yastaghfirullah sabiina marra fil yawmi kii wax astaghfirullah roy na yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndax yonent bi daana wax astaghfirullah lu ëpp juróom-ñaar fukki yoon ci bëccëg bi kon doomi ndey mbokki jullit yi dars baa ngoog lii tax nga nekk jullit charte bi bokk na ci ngay jéggulu yàlla tabaraka wataala di wax astaghfirullah saa yoo defee bakkaar nga jéem a effacé bakkaar bi ci jëf ju baax joo def nga effacé ko ba mu set ndax kat sunu borom subhaanahu wa taala nee na nit ñi fekk ñu may jéggalu duma leen mbugal ñoo ngi jéggalu sunu borom di leen jéggalu di ñaan yàlla jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu mu teggul ñu natt bi tegu sunu kaw balaa bi jàngaro bi musiba bi moom yàlla moom dong moo ci mun dara yàlla nañu ko yàlla teggil yal na nu yàlla làq fu ya làq yeggul maa ngi leen di dénk borom bi yéen ñëpp nastawdiukumullah maa ngi leen di dénk borom bi yal na tabaraka wa taala musal leen musal seeni njaboot assalaamu aleykum wa rahmatullahi barakaatu